bu jigéen ak góor jote jote bu aay danu ca yàgg wax di juum rek di yemale yaar yu yëmut yaar yoo xam ne yemuñu bi nu ko delloo leeral nag nu bëgg di ko jiital ci doonu kaset yi ak njalbeenu seede yi di dolli jéglu lool te xam le ne bu ñu nee kaset bii mbaa CD bii ma ci nekk koy déglu bu déggee lu mel nii may wax nga xam ne bu loola jeexee rek lañu ne woon moo nekk ca kaset ba mbaa ca CD ba moo ci topp insha allah dama yàgg wax lool ak diinu an nasiha diine laa béere la daa ca teg nag di wax ne jigéen bu ñu joteeg moom jote bu aay mel ne njaaloo wala am góor gu ko siif joteeg moom wala ñu jaawale ko walla am góor gu ko këf dem ak moom ba am diir boo xam ne jote xaj na fa bu ne woon jote wut man dara itam du tee ñu war koo laablu wala góor takk ko te fekk ñu araamante la tax ñu araamante moo xam day ci jege jegeñaale ci askan wala nampaale wala goromaale waaye xamu ko woon ba mu àgg ci joteeg moom bépp sëy boo xam ne itam yoon dafa dogu ci ne baaxut faaw da koy tas bu ci jote gi amee laablu ga du ca mën a ñàkk kon nag ñi ñu wax yépp lu ca dal jigéen ja dañu ko war a laablu bu amee jëkkër jëkkër ja du sañ a joteeg moom ba ba muy laablu bu amul jëkkër kenn du ko sañ a may jëkkër ba lablu ga di mat lablu ga day tol ne japp idda bu dee ndaw ba muy mak ba du gis deret ñetteer moy doon lablu ga bu dee gis bax yetti lab moy doon lablu ga manam gis deret yetti yoon laabu ñettel ga bu gisee deret ja ci sës foofu la laablu ga di jeexe bu ci ëmbee nag foofu lanu daa juume dañu daa yemale laablu ak xidda te xidda moom daa boole laablu maanaam wóorlu ne jigéen ja ëmbul dara ak loo xam ne nag wàllu jaamu yàlla la ndax ku dem ba naagoo gis ëmb ak doomit bu tey rek bu ko fase woon mu war a iddaw laablu nag dañu bëgg a wóorlu rek ba xam ne jigéen ja ëmbut ca ca tegoogee moom amul ak wàll ci jaamu yàlla idda moo boole yaar genn wàll ga di wóorlu ne ëmbut genn wàll ga di topp ak yàlla ja muy wàlluk jaamu yàlla ga ci misaal ku amoon jëkkër ëmb nag ëmbub njaaloo jëkkër ja fase ko mbaa jëkkër ja faatu kooku day jàpp idda ba jëkkër ja fase bay iddawu idday fase idday fase mooy day bàyyi ba am doom doogaat nag ba gis baax yetti yoon maanaam yetti laab ba jëkkër ja faatoo nag day iddawu idday faatu waaye ëmb baa tax day seet yaar yii lu mu ca jëkk a jot néggandiku la ca des yaar yi mooy am doom ak ñeenti ak fukki fan bu amee doom te amul yeenti ak fukki fan néggandiku ba am yeenti bu amee yeenti ak fukki fan te amul doom néggandiku ba am doom loolu mooy àtteeb japp idda fofu nak fi la kii am jëkkeur wuté jigéen ja lu mel ni dal di amul jëkkeur mom du japp idda day lablu ki amul jëkkeur bu jalo buy am dom rek am nga dom moy lablu ga laablu ga mat na mënees na koo daal di may jëkkër foofu lanu daa juume lool lool di yemale ki am jëkkër di jàpp idda ak ki amul jëkkër di laablu rekk ki am jëkkër ëmb ëmbub njaaloo jëkkëram fase ko gannaaw bu amee doom day toogaat ba gisaat baax yetti yoon ki amul jëkkër nag bu jaaloo ba ëmb itam bu am doom rek laablu ga mat na manes na ko daal di may jëkkër jëru sax ñuy xaar dereti wasin ja jeex foofu daa juume di ki am jëkkër ak ki amul jëkkër nde ka jaaloo moom moo xam am na jëkkër moo xam amul jëkkër ñooyam ci bu dee ndaw baru gis deret mbaa muy mag baru gis deret laablu ga yetti weer lay doon bu dee gis deret nag mu am jëkkër ak amul jëkkër ñooyamoo bu amut day toog ba gis deret yett yoon mu di ak لابلوم لي ني جونا واخ سي فان يي ني كو امول جكر بو جيسه باخ بن يون ريك مو دوي تي دون واخ لا تيري اسهل المسالك اندي وون مودي جيجين جا جالو ni top ko top gis ne war nañ koo jam ndax dafa njaaloo te war koo rey ñu ne nag bu gisee baax benn yoon rek mu wane ne kon ëmbut mën nañ koo daldi rey muy gétanum njaaloo googee waaye buroon doon njaaloo goo xam ne kenn ko ca rey dañ koy caw ay yar rek faaw rek mu gis deret ñetti yoon ak laabloom door a mat kon ku jàngoon asalul masalik na dégluwaat fa mu toll ci kaset yi jàpp ne nanu ko waxe woon foofu rek noona la kal iddati la fi lianin aw لعان aw riddati fa innaha fi kulli da tustabra bi بحيضة faqat كفيت الضر kon mu dellu waxaat ne jigéen ja jaaloo wala dal ñu joteeg moom jote bu aay mu am jëkkër ak mu bañ am jëkkër ñooyam bu dee gis deret gis deret yett yoon mooy ak laabloom bu ëmbee nag te amutoon jëkkër kon bu amee doom rek laablu ga mat na duñu wax ne day xaar ba deret yett yoon jigéen ji am jëkkër nag lañu wax ne bu ëmbee ëmb bu aay jëkkëram fase ko bu amee dom day xaar ba gisaat baax yett yoon am yetti laab ñu door ne iddaam jeex nanu ci joxe misaal mu neex a jàpp góor gu jaboote ñaari doom yu jigéen kenn ka mu may ko jëkkër mu may yàlla njaaloo ba ëmb jëkkër ja daldi koy fase kenn ka amul jëkkër waaye mu moy yalla njaaloo momit ba ëmb ki am jëkkër day iddaw idday fasé day am doom ba noppi xaar ba gisaat deret yat yoon ñu door koo mën may jëkkër ka amutoon jëkkër nag buy am doom rek laablu ga mat na ndax moom jàppul idda laablu lay def buy am doom rek laablu ga dal nay mat koo kii jëkkëram fase mbaa jëkkëram faatu bu fekkoon ne jëkkër ja faatuwut fasewu ko da ko bëgg a téye kay def ko soxna ba tey kon day laablu rek moo ki amul jëkkër ñooyam buy am doom rek laablu ga mat na kon ñu jàpp bu baax ne góor gi bu ko wóoree ne jote nañu ak soxnaam jote bu ay mel ne mu wóor ko ne soxnaam si njaaloo na bu ko bàyyiwut bëgg ko téye day bañ joteeg moom dara ba ba muy am yetti weer bu dee ku dul gis deret bu dee ku gis deret mu bàyyi ba mu gis deret yetti yoon bu ëmbee nag mu bàyyi ba mu am doom rek laablu ga jeex dal nay mën a jotee moom bu ñu wax ne day am doom toog ba gisaat baax yett yoon xëy na du ñu fàtte ne yi ñuy wax yépp mooy jigéen ja jote gañ joteeg moom dafa aay ba ba mu ci ëmbee du ñu bàyyile góor ga doom joo joojee waaye bu fekkoon ne jigéen ja dafa ëmb te ñuy moomale ëmb bu ka ko tax di iddaw kon moom buy am doom rekk ba lépp doom ja génn rek idda ja dal nay jeex xëy na dañu fàtte ne ji jigéen bu tolloo ci idda moo xam idday fase la moo xam idday faatu la ku ko takk rek ñu gaaw koo yëg daal di koy dindi jotewul ak moom dara moom bu idda joy jeex da ko mën a takk waaye nag bu jigéen nekkee ci idda ku ko takk ci biir idda ja joteeg moom ci ba idda ji la jotee moom waaye dafa sukkandikoo rek takk gam ko takkoon ci idda da koy daal di araam faw faw faw bu ko mën takkati mukk mukk mukk waaye nag nee nañu bu fekkoon ne idda ja idday fasé la te itam jëkkër ja am na sañ-sañu fay li soxna sa day mel ne kon soxna sa soxnaam la ba tey ku ko takk ca ba muy itam da ngaa mel ku takk rek soxnas jaambur nga xam ne kon bu ko araam araamuk dappetu buñ demoon ba jigéen joojee amut gàllankoor kooku ya takk ko kooka mën na koo takk duñu wax ne da ko araam araamuk dappet ba tey jigéen bu ñu joteeg moom jote bu aay ñu war ko caa laablu mel na njaaloo waruñu ko may jëkkër buñ ko mayee jëkkër xam ne loola jaaduwut ñu daal di gaaw dindi ko laata ñuy jote dara dara kon bu laab ga matee rek ñu mën ko ko mayaat bu fekkee nag may nañ ko ko ba am ca bànneex moo xam bu ndaw la moo xam bu mag la waa Maalik dañuy teqale kookee ñu ko may di defoon nag moom jote bu aay boobee ak nag bokkut ak ka defa nag moom jote bu aay ba bu dee ka moom jote bu aay ba moom ñu may ko ko te laablu ga matut mu am ca bànneex noonu laablu ga mooy yàqu waaye buñ ko laabluwaatee ba laablu ga mat rek ñu man ko ko may waaye nag ka nga xam ne ab jaambur la ca maanaam la ne ci jigéen ja defu ko ca li ki bu dee njaaloo moom bokkut ak jaaloo woon ak moom buñ ko ko mayee noonee te laablu ga matut mu àgg ci joteeg moom rek ba nga ne mu am ca bànneex rek muy bu ndaw muy bu mag da koy daal di araam faw faw faw ci ni ko waa Mali ñoom di waxe di sax yenn ngir yi bu ñu jàpp loolu ndax dañuy wax ne gisuñu ca tegtal waaye waa Maalik moom noonu la ñuy waxee kon mën na noo jàpp ne bu ñu mayee jigéen jëkkër fekk mu ëmb ëmb bu aay te xamuñu ko woon buñ ko teelee xam te jëkkër ja jotewut ak moom dara dañu jàpp ne rek may ga moog lu amu bu amee doom rekk ñu man ko ko may waaye bu àggee ci wéet moom ba am ca bànneex te jëkkër joojee bokkut ak ka defa nag moom jote bu aay ba kon jigéen ja da koy daldi araam araamuk dappet faw faw faw yoon nag gis nga ni mu diisee ndax dañ koy may jëkkër xam lu woon ni sax toll na fenn jëkkër ja itam ba muy wéet ak moom xamu ci woon dara bu doon ci idda ja noonu la ku takkoon jigéen fekk mu toll ci idda te xamutoon ne ci idda la toll it ñàkk gaa xam bu duñu ko faale bu fekkee ne jote naa moom ci idda ji rek mbaa gannaaw ba idda ji jeexee tam sukkandikoo takk gam ko takkoon rek mu araam ko araamuk bappetu araam faw faw kon noo ngi delloo jéglu bu baax a baax njuumte loolu nga xam ne yàgg na ci lool jigéen joo xam ne jëkkëram da koo fase waaye faatuwut ba tey moom sañ naa waaj kenn du ko wax ne ko dangay ngay ténj moom mën naa waaj waajtaay ba nga xam ne islaam maye na ko te wutiwaat jeneen jëkkër ndax dañ koo fase rek jëkkëram faatuwut waaye nag bu jëkkëram faatoo bu dee iddawu diirub idda ja da bool li ñuy wax ténj ténj nag moo di ñaawlu maanaam bàyyi xel jëkkëram ji nga xam ne moo génn àdduna ba bañ a waaj waajtaayu àdduna ténj googu nag moom baa nga ne ñaawlu fii ci aaday sunu jigéen ñi dañ ci juum ak a jaawale lool léeg ñu jàpp ne liggéeyal seen jëkkër ji faatu la mel ne daal li ñu def moom liggéey la bu ñu liggéeyal seen jëkkër ji génn àdduna ñu war a jàpp nag bu baax ne lislaam daal moo dégle jigéen ji nekk jullit jëkkëram faatu mu bàyyi lépp luy waajtaayu àdduna diirub idda ji jeex ndax sàmmoonteeg ormay jëkkëram joojee faatu nde ci wàlluk jaamu yàlla gi ni ki sàmmoonteeg julli juróom ak war a sàng yaram weeg lépp moom dañ ko ko sante woon ba jëkkëram faatoogut bi jëkkëram faatoo du yokku du wàññiku lépp luñ ko santoon rek ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu doxalin ci sàng ci yaram lam ci war a sàng lu lépp amul dara lu ca yokk mbaa lu cay wàññiku bokk na ca nag la gën a mat a wattandiku jàpp ni ñoom dañu wara julli wajat waxtu waa jot dañoo war waxtu julli wa loolu lu aram araam la bok na ci bàkkaar yu mag yi julli te waxtu wa jotut te tay ko bolé ja bu ko to nit bu julé te waxtu wa rek waxtu joté mu war ko baamu waye nak tay ko bolé ja mom da bok ci bakkar yu mag yi ñu jappalé ba tay ne jigéen du jité ben yoon bu dee ci yoonu Malik moom nanguwuñu jigéen jiite kenn mënta jiite jigéen ne moom rawante na jiite góor kon ñoom ñii tënj noonu buñ bokkee benn barab ba waxtu julli jot buñ amul keneen ku leen jiite kenn ku ne day julli julli boppam waaye kenn du ca jiite moroom ma kon noo ngi wax ci benn benn ci teqale yi nga xam ne jigéen ji ténj war na koo jàpp bu baax xam ne loola rek lañ ko aaye lu bokkute loola mën na ko ba ci jëkk mooy lépp lu ñuy waaje ci xeeti takkaay yi moo xam ay jaaro la ci napp mbaa ci loxo mbaa ay lam lépp luy xeet takkaay ñu koy waaje rek kuy tëj du ko saña jëfandikoo ak lépp luy xeetu lat koleñ lu neex xet rek du ko saña jëfandikoo bu nee nag lu neex xet du ko mën a jëfandikoo kon bu fekkee moo doon métier daan liggéey lat koleñ du ca mën a liggéeyati bu fekkee da ko daa jaay te muy tax ci moomit it ci bu ko dee jaay it bu ko mën a jaayalati boppam waaye nag muy liggéey bi muy njaay mi mën naa seet keneen koo xam ne moo ko koy liggéeyal mbaa moo ko koy jaayal waaye moom ci boppam moom du ko mën a liggéeyati du ko mën a jaayeete kon ñu jàpp ne benn ngoog mooy jigéen bu dee téen ji lépp rek luy xeet takkaay du ko saña a takk lépp lu xeet lat ko lañ du ko sañ xeeñoo du ko saña liggéey du ko saña jaay ndegam boo dee jaay mbaa mu koy liggéey dana ko taq di xeeñ ci moom ñaari bi mooy xeeti yére yi bépp yére boo xam ne dañ koy waajee moo xam dañ koo suub cuub loo xam ne waajee tax ñu suubee ko noona yépp yére bu ñuy waaje rek du ko mën a solati booba ténj gi jeex lu may nag am na xeetu cuub goo xam ne daawuñu ko waaje dañ ko daan def ci bisu naqar mel na cuub gu ñuul kukk bu dee ña koy sol bisu naqar moom jigéen jee téen ji mën na koo sol ndax du waaj taay waaye nag bu dee barab boo xam ne cuub yëpp la ñamale mbaa sax ñoom cuub gu ñuul koo dañ koy waaje kon kii téen ji du ko mën a sol benn yoon kon nag ñaareel baa ngoog bu sol yérey waaj waaye nag néewuñu na sol yérey góor mbaa dara mën naa sol yére yu ko soob ci yére jigéen yi li fekk nekkul yére bu ñuy waaje rek xam ne ko sol njàpp na ngaa waaj rek mën na ko sol ñetteel mooy du sañ a defar boppam mbaa yaramam ci dara loo xam ne da koy nëtëxal di ko rafetal du saña defar boppam du saña defar yaramam ci dara loo xam ne day nëtëxal yaram wa mbaa bopp ba lu may nag loo xam ne jubluwu caa taar taarlu dafa bëgg rek mu set niki saabu ordinaire yi nga xam ne day setal rek wala mu diwoo diwu qualité ak lépp lu ñuy fajoo rek mbaa ñu koy setale amul xet gu neex li wax nag wat ab naq wala xus kawari poqtaan moom duñ ko wax ne ko dañ la koy aaye bu ko neexee bu bëggee wat ab naqam wala xus kawari poqtaanam mën na ko jamono yi nga xam ne daana am ay sangukaay yoo xam ne dangay ñëw fay door dugg nag sangu sangu bu baax a baax ki nga xam ne mooy téeñ ji du sañ a dem ci sangukaay yooyu ci yooyu jamono bu dee sunu jamono jiitam xeeti salon yeeg fi ñuy defaroo du fa saña dem lu may nag nee nañ ci yooyu jamono moom bu amee ngàntul dem fa ni mu amee ak wéradi mu tax ko faa dem ci sangukaay yooyu yooyu jamono am na ñu ne ayutoon sañees na ko ba tey du saña tus ngalu ndax tus ngalu waajtaay la lu may nag mu di ko faje ay bëtam bu fekkee da koy fajoo moom nga xam ne defu ko waajtaay doonte sax la muy tusngaloo neex na xetit du tee mën naa tusngalu waaye nag dañoo bëgg mu di ko def ci guddi gi su bëccëgee mu dindi ko ba mu set bu guddee mu dellu ko defaat ndegam daal du ko wàññi dara ci bu ko yemalee ci guddi ga te bañ koy def ci bëccëg kon na koy def ci guddi ga su bëccëgee mu dindi ko ba mu set ñu jàpp bu baax na itam yu bare bari day aada rek juñ fi fekk bu leen di song waaye du dara mel ne teg ab la yook yeneen ca seen kanam wala sàkk waxtu woo xam ne ca la ñuy sangu ba ca la ñuy fóot mbaa ku fóot bala ngaa génn da bàyyi ba la nga fóotoon fenn mbaa lu ko nuru xeet yooyu ay biddaa la lu ñu fekkoon rek la ci maam yi lu aju ci wàllu sangoog fóot ak yi fi aada yëpp daal moom nañ ko daan defe rek ba ñu tàmbaleegul tëñ ji noona rek la mel dara soppi ko wu ca ba tey nañuy moytu bu baax tàllal seeni tànk mu jëm xibla maanaam fa ñu julli di jëm ñu tàll seen tànk jëmale fa jëm xibla ak jaamu yàlla la lu ñu fonk la ba nit ñu baax ñi ñoom dañu ormaal wet googu ba jàpp ne tàll ay tànk jëmale ci wet googu xëtt teggin la ba tey dañuy jàpp ne bëccëg bi moom bu amee soxla soo xam ne amul koo ko doxali rek mën na koo dem doxi bu amee liggéey boo xam ne amul kenn ko ca taxawal mën naa dem liggéeyi ko la mënti ñàkk daal mooy fanaan ci ab néegam guddi gi moom bu mu ko nekk fenn fu may néegam waaye bëccëg bi moom soxla su mënta ñàkk te mun koo ko doxali mën na koo doxali boppam liggéey boo xam ne itam mënu koo ñàkk def te ko ko defal mën naa dem defi ko lu mel ne nag génn dem ci ak céet wala dem di jaale yi am na ñu ne mën na ko am na ñu ne mënu ko ni muxtasar ak saraayaak téere bii di waxee moom day mel ne du sañ a génn di dem ci ak ceet wala jaale ji wala lu ko nuru waaye ni mu dawoon waxe moom dañu ne aayalu ko ndax daa wax ne ida xarajat li xawaa ijiha أو لهرس فلا تبيت بغير سكناها وطهم ذك يجوز للمعتدة أن تخرج لقضاء حوائجها الضرورية كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعصية هكذا قال الشيخ الدردير كما هو ظاهر مختصر خليل لغن ورنا كون موي رek dañ ca boole dem ci xeeti xewi aada yooyu ak yooyu nga xam ne mën naa ñàkk